saa neexoon locataire yi jar na bàyyi xel xiiroo beeg nga yóbbi ci biir kër gi lay xewe jàllo mi moom kër gi amul suwaa tey muy jaay kër gi ndaama aaye ko ko ñàkku français la ñu refuule ko Adama Fall këru lépp ci wet bi jar na bàyyi xel ndax saa neex tey ma wax la am na ñaari néeg benn ñaari fee apart kaay kaay tamit appartement ah la am na ñaari néeg ñaari dégg gis naa ah am na noo ette douche bi mu ngi nekk de waañ bi ay ah, mu ngi nekk si ginnaaw am na poulailler bu ndaw en ah, ah, quelque ginnaaw jeex na hmm. léegi yow dag may may bu ko defee ma woo sama frère bi xam moom entrepreneur man noonu dama waaye nag waroon naa xam prix bi tamit nag de. ah dama xaw a yàkkam ne xam nga noonu li tax sax ma bëgg a jaay kër bi. dama am ñaari ngénteel. ñaari ngénte nga ah suma ñeenteel bi dama ko war a ngénte deuxième doomu. waaw suma ñetteel bi dafa nekk en état neuf mois. yow nag professionnel nga de. ah loolu moo nekkee foofu kat nga de. ah loolu moo ah, nekkee loolu du problème. Hmm. loolu du problème léegi léegi su ma wooyee ki may woo. fii moom dina ñëw càmbar lu ci am nag coow jiwu. fii non seerul. Ah. 18 millions laa bëgg. looy jaayee 18 millions kër gi kër gi. kër gi nga may jaay di suñu. 18 millions bariwul. yow kër gi taxu kaa rey noonu. pour <laughs> yaakaar ne nag bul ñaari appartement nga foog ne. léegi ma xaar sa kii bu ñëwee. waaw waaw amul tooga tooga baal ma woo ko moom. soit tranquille. amul problème ma mel ni jënd nga kër na comme sa kër la. kër gi kay kër gi kay moom. ma ne ko saya yi jar na bàyyi xel. xiiroo beeg naa yoo ci biir kër gi lay xel. dafa am benn kër bu may jënd bëggoon nga ñëw xoolal ma ko ba xam waaw waaw fa laa nekk ni <laughs> ah, waaw waaw xam nga rek ñun moom ñun moom kër moom bu ñu gisee buñ kii dañ koy jël defaraat waaw baax na waaw baax na. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñoo ngi siyaar. waaw yéen a ngi jàmm. sant yàlla. alhamdulilah mais sant suñu borom. yéen jàmm bu baax alhamdulilah. barakallah. alhamdulilah daa am koy seet. kergan kerki <laughs> kerki gi kër gi waaw lañ jël <laughs> ku lay jaay kër gi borom jàlloo waaw anamu ñu ngi ñëw dafa génn dafa génn ma doon wax ak sama euh, sama mag bi waaw léegi kon yow entrepreneur kon yow da ngay génn génn pour la dem ba xaar jallo ba mu ñëw bëgg jënd kër gi ñaangu ngay génn jàlloo ba fi may wax ak yow kër gi parce que daf ñu ak waaw mu confirmer loolu ni daf ñu koy daf la koy jaay. loolu mi ngi teew ñun suñu yoon nekkatu ci. gannaaw nag jàlla newu fi ñun ñoo fi ne banque bii nga toog yàlla dafa def ni maa ko daaj lu ci menuisier bii ci koñ bi. moom ngay njëkk a jóg. boo ko jógee après nga dem ba jàll ñëw laa wax. sëñ bi man bu ma jaay naqari dërëm ndax man xam naa ne gënoo maa naqari dërëm. waaw demal. waaw bu dee xotteeku gënoo maa xotteeku dama lay wax. waaw demal demal te yow xam nga. si benn wax rek bu yeboo nga tippi bi nga génn génn bu la bett. te ki laay jënd ngeen génn taxat man man ngay man ngay li mu wax dara ma ñàpp xoolam loolu kasa la yow kii rew na ñànku ñànku ay ñànku ye kay ndaamam ndaamam tooga ndaamam nga baal ma waay jànk li leer léegi mu leer noo xaaral rek toogal Euh, ab waaju réew laa fekk fii. bi ma ko fekkee mu toog ma nuyu ko. ni ko koy seet mu ne ma seetuma kenn kër gi nañ ma bëgg a jaay. jàlloo ma ko bëgg a jaay. ma ne ko nag gannaaw jàllo nekk fi da ngay génn ba jàllo ñëw. jën kër. bii koy jaay pour génn ñu. te booy jaay nit kër da koy avertir ba mu am fu mu dëkk ba pare. franchement franchement man les Sénégalais. est-ce que juumul non dafa jàlloo kooko wax ni ko day jaay kër gi léegi nag ku ne am nga sa bés fii ci kër gi. réglé ko ña ko am na lu mu fi réglé am naa lu mu fi réglé ndaayaan mii nga xam ne du xippi sax am na lu mu fi réglé te yow nii nga def dangal ko ba mu dang nii mën naa réglé lu ne na nga ko réglé. loolu na seen xol sedd. waaw pour kër gi. waaw dañuy dëkk ba doyal rek. na te waa ji bi muy saaga na ma. nee na ku ko fontoo ci kër gi mu ñuus la. waa ji jënd kër waa ju rew la waaw. Ah. ah waaw boo nga woo ni waaw kay. nañu leer. waaw Macky Sall bi mu waxee gars yi nañu wàññi kër yi gars yi sax location yi gën a seer. allo yow foo nekk. waa kon exil comme yaa ci buntu. luy <laughs> leer dina leer luy leer na leer. man nii nga def mën naa régler situation bu ne ci réew mi na xam naa lu dang lañuy bañ a gis. sa waay yow bi ngay dem maa saaga nag. ma dama ne bu ma kenn ñàpp lu maa ko wax du ma tàppe de ku baax. yëgu njoolu. yëgu njoolu. dafa indi waa ji waa ji toog fii ma ne ko loo ko def comme li ma leen wax rek mu ni jàllu mii da koo jaay kër gi. te ñun avertir ñu ba ñun amuñu feneen fu ñu luyee mu avertir ñu pour may ñu délai bu ñu génnee bu dee nag réew mi lu ko lu waay neex def. yor moom sa yëf am nga droit jaay ko mais dafa am sart yu mu war a aw. waaw kon kon réunion bi réunion bi ma maata. Eh, ah kër gi da nga koy jaay wala. kan moo la war a jaay kër bi. yow yaa war a jaay kër bi. yaa ma wax ma naa ah, eh, eh, ma sénégalais yooyu eh, man man sama ban problème la am xaw ma man maa dégg wolof il paraît xaw ma non yéen a amul déggukaay eh yow duulu kan moo la wax. waaw dafa dànke dafa dànke dafa dànke. taawal taawal bala ngaa eh sa diggante ak yàlla sa ma wax dama jaay ko kii ma ko wax. yow dégg nga gémmiñ. kii moo ma ko wax. waaw dama la laaj kii dama jaay ba indi ma na ma xoolal. woo sama entrepreneur eh dégg nga suma gémmiñ wala déggoo ko. yow dégg nga ko wax ne da jaay kër gi waay yow. ne da ngay jaay kër wax. ma nee ma ni ko dafa naa wala nga am nga fit. ka bu ñu duggee tamit bu ma la mokkale yow ba may ma laaj foto no mais dafa naa ngeen. Diallo wul kii dafa maa laaj. jaay kër bi. waaw ma ne ko jaay mu ne ma lan nga koy dugg ma ne am na ku xel mi neexul am na fi néegi ñetti weer mu ngi nii fayul. waaw dinaa ko génne. nga ñëw ma yokk luwaas bi ma dox la léegi. yow yaa mën a fen point. mënoo bàyyi fen waaye kii ay loolu baax. allah na andi xam nga ni lii rek la ne lu ne lii. allah na. waaw yow jugal fii nga ay alal si de ay alal lu xola ko du meen déglu ma wala man dooma ñaf lu xoonam dégg nga ma wala amay déglu ma wala du yàqee nekkatoo yow sa waay réew nga nag te yow ay ñaf lu xoonam ak ñaf lu xoonam amna si la ma bu la neex moo ko yow yaa ko wax moo ko wax wala kii ku leew la kii ah ku leew la wax dafa réew waaye loo may bu ma xëcc moom man moom ma kër moom ma da may jël ci moom ay jàng histoire ki dafa ki dafa say say mu lo mu gol nga fekk ñaf xoonam laa wax ah xamoo la génn wax la yaay kan yow xam nga man maay kan xamuloo eh semu ndaanaan la soldat deuxième classe ah, barke Ndo commando semu fi doo taxawee ci yow bu nekkee da ngay jàng reew wala ngay wéy wéyu su ma kattul seen xool benn par benn ne leen ma kuri xaj imbécile la waxoon ma jaay kër waaw yow ku baax amatuma ak yow wax déedéet amatuma ak nag dafay bëgg a bëri de fekk maa bañ a ku baax non dama lay wax rek ma sa xool xool ni kee doo dem sa dem. yaltu xam nga loolu yaa ngi ma ciy sax sa saagay na pour ñaal sa saagay ngay saag wala nga waaw tu es bien précisé. Ah, am na loo xam ne bëgguma kaa wax ak yow. billaay walaay talaay boo dof dof la di nga sa bi ne ma tëf te jaru ko. yow ku baax xoolal man man kilifa laa ci réew kenn du ma yaakaar dama yor. ku ne ngeen la affaire kattu xoonam yi ngay nekk man nekkul. ah ah mu kattu suma ko woon d'accord. yow di nga génn. merci ku naxa kattu xoonam boo génnee mat. yow man ngay man ngay duural su ma génne. ah dafa nag dafa nag waxtaan xaaral xaaral. xaaral tuuti xaaral xaaral tuuti. xaaral tuuti xaaral tuuti nag may jaay wala jaayoo nag may jaay wala jaayoo. gàllankoor bi maa yi. olof yàlla ne la gàllankoor. yàlla ne la gàll. yàlla ne maa yi yàlla ne maa yi. yàlla ne. loolu laas maa la fu mu. yaa yooyu daf la ngay def ba pare daw de. da koy siffler. laay ñëw rek waaye jógal. laay ñëw rek. eh jógal. man léegi sax changé naa kattan sa xol ci biti. waaye yéen ñëpp kattan sa si biti ak kadara kat yi ñu kat su loo mën ñu ñëpp ñu kat su xaru kër gi kër gi. waaw ci biti loo waxal ma yëgulu ñoolu. man naa ko waxu duulu. seetaan da nga rek doo àgg ah mosoo riir àgg waaw rek dëpp waaw yow yow taxawaay ji dana dana damay kat sa xol nga ci biir ay kat sa xol so na rek waaj na kat sa xol ma ko rek waaw waay waay jël kat kii moo investir te leew rek wala saay fay dañ may neex de dañuy yoo bi ci biir kër gi lay xee jàllo mi moom kër gi waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw xam nga nag àdduna moom noonu la am na lépp ah <laughs> soo maa ngi lay maa ngi lay woowaat waaw ma ma ma ma ma maa ngi lay woowaat maa ngi lay woowaat maa ngi lay woowaat na nga def. ci loo nekk baa yaa ngi ci jàmm. yaa ngi ci jàmm ça va bien. ça va bien barikàlla indi laaj. yow de yow dama lay gis na ngay ñëw rek romb dugg dugg dugg néegu ndaama. may yàkkamti te des fois mu ñu dama lay fekk ngay toog ak ay nit wala wax téléphone loolu moo. wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga waaye nag comme que da ñëw di ñëw ci kër gi dugg ko génn. Mm-hmm. duñ xamante baax na ci. xam nga àddina moom xamante da cee baax. xam nga alal moom du yokkute. xëy suba xam koo xamul woon looloo yokkute. waaw dëgg la mais man yow. Mm. mais fas sa kanam bi rek. donc déedéet ah, naan dooma <laughs> de naan dooma de ah. naan dooma kafa fas fasuma de. fasuma fasuma fasuma fasuma fasuma xam nga nag léegi nu mm-hmm. pour sax nga nga xam ne fasuma. man jàppante takkoon naa ak yow ndey dikke iya, wa yow ya dal def ma def ma def ma pa dikke ma ma def la dom dikke jeex na taat amul problème. bàyyi ngeen ci biir yaa ngi fi non. wa maa ngi fi waaw waaw waaw à tout à l'heure. yow ay ndaw. man de gone yi xam naa ne xam nga ni bu bu bu ma yalla defalon jàmm rek ak sutura mu mu sama wet ma ñaan yalla mu may ma ko. laa ilaaha man de gis nga yii billaahi olof lu mu wax dëgg la ñi la mujj am kër ñi la mujj am wota ak ñi la mujj am soxna ñoo la koy dàqale adduna ñi mujj lay gën a neex le xaaral xale bii xale bii dem nga attaqué ko nag mu yemale laa yooyu te man dama di mag maa bëri kersa xaaral ma woo sama waa ji allo lébu <laughs> naka suba waaw waaw waaw ah sori woo yaa ngi ci koñ bi ah yaa ngi sa kër lakkal ñëw wuy si ma laa soxla c'est urgent wa loo daw xeeb naa ko déedéet déedéet du problème kër gi du problème ay ñànkoog déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet dafa am lu ma la bëgg a waxtaan ak yow rek waaw waaw baax na maa ngi lay xaar sama waa ji nekk ci man daal nante la saane xam locataire yi jar na bàyyi xel xiiroo beeg naa yoo bi ci biir kër gi lay xew Diallo mi moom kër gi amul suwa dama ci yàlla def sama wërsëg eh, doom yàlla bu ah <laughs> baal maa ko kal noonu waaw waaw ah waaw Aatu maan Njaay mag baayu maar Alaaji Asan Ndooy sa baay wuran Lebu Ndooy mooy sa maam wuran Kanaar Ndooy mooy sa maam kin kin kin wuran Tara Bay Biram Ndooy dafaafa toog Lebu <laughs> man Lebu yi wallaahi lalla na mu nama la maa la sama waaj aa ngi nii oto bi mbaa oto bi jàmm ma ñëw de Lebu waaw dama di mag. danu lay mag. te. wéet baaxul. Hmm, na ma la kaa wax boo weetee sa xel day dem ci lu ne bila def loo lu ne. dëgg la te lébu. Hmm. dafa neexul ba neexul yaay sama xarit fi mu tol nii waxuma la sama oom yi diis na waaye sama hmm, fépp bloqué. te yàlla daf ñoo wàcc boole noog jànq ji. dëgg ñooñu moom de. ni ñu jël leen ci jaamu. Mhm. a ngi ñëw de. dégg nga li ma la wax. ah waaw. xanaa xamoo sax euh, euh, euh, ne ci sab na mhm. ak loo ca mën a def ci lu lu lu neex. am mhm. jaamu yàlla la ba mag. lébu li ma sonn naa. Ah, mosoo maa lu ni ma alaaji jëlal soxna gannaaw ña nga yoroon yëpp de xam nga man nag. nakari na der nakari jeel bo xamni bo boo ma nee sa bout bi souf ak man man la jël say bagage ñepp sa kër yaay man ma yak sama nakari dara tay yak sama nak mo taxone bëggatuma la duggal ci lenn la xamni ëlëk ndax ma sey gatché lo waat jappalé ma nak changé c'est sûr dafa am xalé bu ñew fi, ci xalé bi luyee fi xalé bu wow. bi ñew fi ta xéss waaw waaw dama tedd guddii yalla won ma ay mbirum une mana ko wax ni ma tante ci sa sens te man xam nga ba nuy gone ba légui ya mës a dem euh, dohan jox ma ma djel deug la de ya ma dan may fit deug la de non na mala kané ma bëgg mhm. mi ngi fi ci biir lu gëna fi nga wo ko nga ni ko alaaji mi la bëgg sax nga djel sa xol bi jox ko ko alhamdulillah yor nga dara loolu lépp àgguñu si. ndax dama lay wax yor nga dara ak yow indaale nga la man sax fekk maa ngi nga yëkkati ab junni jox ko nga ne ko na jënd crédit nga ne ko hmm. man maa ko ko jox moo jox junni bi dinaa la ko fay. Hmm. dinaa la ko fay. kaye bi. kaye bi dinaa ko wàcce baax na. Euh, euh, sëñ Modou sëñ Modou borom Kéemaan. Modou Gaynde. Gaynde hmm. may may ak conférence fii ci koñ bi. te nee na ma maay financé lépp. si koor waaw ci loolu laa bëgg a xëcc dara jox la nga fay kayit xale bi daal loo ko mën wax ci lu baax ci ma nanga ko ko defal loolu du problème alama waay yàgg nanu jàpp ko xamante nanu pour ma jëlal la kii alala yu ma nee ko mi ngi yàq sama addina ji na nee ko mu nelawatuma bàyyil ma dem rek nee ko mu na ma takk na ma takk bum bum ci baat na ma torturé diina ni ko doxaaluma soxla ba oh, oh, digg na ma la nag ah saa awit nag lan la dama bëgg nga jàppale ma rek diina <laughs> woy ma maa ngi ci biir yow booy wax ak moom rek dafay mel ni nee ko génn naa nekku la waaw ne ko sa waay daa wax maa wax ba pare daw daa bëri kersa gént gi ujjante si kii ne ko sa waay ne ko daa bëri kersa maa ngi ci biir diina demal demal demal Assalamualaikum, assalamualaikum. man la Ndebou. mamee ngi. Wa, ubaalal ma. mami. na ah, def. Elisabeth. ça va yaa ci jamm. ça va alhamdulilah. bien ya, merci. baa ngi si jàmm. ça va do yek ci biir. non non baxna baxna baxna. c'est pas grave. Man nañu waxtaan fi waxtaan wi waxtaanu la rek. Mhm, maa ngi dégg. Ah, ndax ma waay. Mm-hmm. sa waa sànneex waaw kay kay dañu lon wax dal si say wax ba sori si lol mu xamal mané guni ga bax guni ga am ka am sutura la mm-hmm. kala gis itni ni umel sha allah ah duma la fen nak yalla def na am ma soxna mm-hmm. waye yalla def na yàlla nag may na ma teraanga ndax am na ma juróom ñaari gaal yi filaat ak ah, ñaari gaal yi topp te loolu bëgg na ma béskat ba ma fi jóge am njaboot gaa xam ne dinañ ko yor indi si dem géej di si jël ña teraanga soxna si ma yàlla booleel depuis boobu ba léegi amulu doom ginnaaw nag bi ma waxtaanee saa mm. mu wax ma si aw qualité yaa xam ne óolu na ma la pour jël la def la soxna ku ñëw ma kër ndax ëllëg njaboot si nag njaboot la yaa doon alal ji in doonal ko sax hmm. loolu rek la waaw doogu doogu daal moo nekkoon tànk yi mam yi ah <laughs> tout d'abord damay wax alhamdulilah euh, di la wax ne kontaan naa bu baax tamit Pas parce que man jigen la ak numu muntu munti mel aussi ci ginnaaw góor lay jall aduna du neex ba góor di jall sama ginnaaw deug la donc man xoluma lo am ak lo ñak mm-hmm. njaboot nak yalla mo koy jox doomu adama du doomu jok mo koy jox bopam deug la ba tax na pour ma seyel la du nek problème mm. man sey kessa la bëgg waye comme man dekkuma fi dama fi ñew setti sama xarit dang may baye bu ñewé ma waxtaan ak mom après man ma revenir la amul ben problème ñoom Fall fan laa dëkk. man euh, pour l'instant maa ngi fii dama jógee voyage ñëw fii sama kër xarit bi donc amaguma logement moom la dëkkal mais loolu du problème jàppal ne ci moom laa nekk rek. incha allah ba léegi suba ma ñëw suba waxtaan ak say waajur lii si war lépp ma def. amul benn problème dina la revenir man say rek laa bëgg. ay mami ma xol bi sedd na kat. <laughs> dina ci waxtaan ak après ma revenir. alhamdulilah incha allah doo ko réccu au incha allah aw pour l'instant nii jàppagul ne. ñaari mm-hmm. gali fi laa tourné yeneen i aaka moom pour ne saa aaka moomagul de dinaa la sayal te yàlla rek tax alhamdulilah barikal waa kon léegi xaaral ma jox la aywa mami jàppal ma mi nee naa la dinaa la sayal te yàlla rek tax la rek ala la ndaw laas la rek Ah, kon merci beaucoup. jaraabot kontaan moom koor sedd na ah. alhamdulilah. lébu lébu ah. Ah, ah. ne ma génn naa. bu ma la bu ma la nee génn waa waaw génn naa bi système la woon bu ma la nee génn naa tey nga xam ne mi ngi ci biir te maala maa la yónni. nga fëgg ma sax rendre ma compte. waxal loo ko wax. foofu moo gën a romb. mokk na. billahi nagul na ma. si aw rek nag la des. waaw. bal bal fi jooy de. bal fi jooy bal jooy. nee na la dina ànd man. te laa si xamul moom yàgg na laa bëgg ah. na la ne yàgg na maa bëgg. premier jour bi nu toogee fii. bi muy dugg fii laa ko woo mu ne ma ñeme bëggoon naa la waaye dangay ngay fas sa kanam. ah jour bi nu toogee fii. waaw te nu di ñu edd noonu. waaw. am na la mu gis si aw de jour. yow yow yow yow nee ko wax nga ko ne maa ko jox xaalis bi. mais na ma ko lii moom moo la ko yóbban. léegi nag man maa ci des. ah si des léegi am aw junni bi tamit. bokkul ci kaye bi. bii ah. bii moom dama la ko may. <laughs> bii moom dama la ko may may na ma la lépp. ah boobu bokku ci. ah la ma waay di. léegi ndax dama yàgg mbëbët u am lii. dama la ka yàgg mbëbët. da ngay dem ah kay bàyyi ma léegi bàyyi ma bàyyi naa man est-ce ma dem sax tefes géej. ah da dem géej. waaw xam naa daal foog ma dem xooli ji mbaale yooyu. boo yàlla bëriwul yàlla jub si aw la des de. jeex na. damay takk. lu wax ni. <laughs> Ah, kafoo. takkee xaw ma gaal la ñuy wax wala bato loolu du tudd. <laughs> booy dal nga ci. nee ñaar la may jox parce que six la yoo ak ñaar lébu nee na daa am jabar jabar ji amul doom ci gàttal daal daay gaaf mënul am doom donc laa bëgg koo xamante ni dina ko jural doom kon man su ma fa doom alal bi yëpp ñun koy moom. waxuma la sax waxi alal di jànk ndax bari na alal xel mi neexul. bari na wax xel mi nag day dem di ñëw waaye loolu yëpp garaawul. yow dàq ci sa wërsëg rek dàq ci sa wërsëg. dal nga ci daal dal nga ci. doom jooyul kenn laajul lenn jabaram ja sax nag dèjà gis nga ko na mel. doom dina jooy. E, jeex na. maa fay jur équipe nationale grand place. waxuma la nag ay dugg génn. wuy ma séddoo jëla junni jox ma junni. non non damay waaj a sëyi te man sama togg des na bàyyi ma dem dugg ñëw nga jaaxal ma toggee ndax damay wujje gi kii jël na ko au sérieux bi. mbaxalu kii nu mu tudd affaire boobu noonu. eh bu fi togg mbaxal tey tey nañ ko def cu bu baax. cu lan la ñuy réer cu. waa. soble. Eh, duuti waaw jën. ñaam bi. ah tuuti toogal kan tuuti kan dama laa dama laa dama laa dama laa kii àdduna noonu la waaw àdduna noonu la àdduna noonu la parce que tey mun naa ne xaaruma woon lii dëgg ah noonu la nag yàgg ya naa nekk sama xel nag parce que ñu ngi fekk gisante ci kër gi maa ngi lay romb maa ngi dem keroog yaa ngi ñuy woo di wax ma jàpp ne da nga soxoor déedéet déedéet déedéet alors que c'était pas du genre ba tax xel ma am na lu ko mbas waaye xam nga moo tax ma ne <laughs> ma ne bu engagé rek yow engagé maanaam mooy. waaw waaw waxtaan nañu bu baax a baax. ndeysaan ma ko bañ a yéene nag. baax la affaire bi bett na ma. Uh-huh. kontaan na ci yow ba sax nee na ma sëy bi moom xam naa bi ci amee doom. Uh-huh. yow la koy tuddee. ma ne après suñu sëy maanaam bu ñu bu ma taqee ba pare. Hmm. doom bu ñuy njëkk am nee na yow la koy tuddee. kooku. lébu sa xarit. Uh-huh. moom. xanaa yow wax ak Liba avant moo ñëw foofu. waaw waaw gisante kay. waa léegi yow woo ko moom mu may lii sax xaaral comme yow yaa taxaw ci affaire ba mu ñëw ma ne xaaral ma bokk. waaw waaw jëla jëla jëla baax na baax na baax na yàlla xam na da koy jël déedéet jëlal bi rek. kontaan naa trop tey moom vraiment maa <laughs> ah da ngay coupé coupé de continuer coupé rek coupé sa àddina yëpp li bu yaa judd ci gën leen nàmp ci mbaam li bu yaay mbaam yow yow ba nga ma mayee junni bi la sama xel waroon a ñaaw yow allo ah da ngay coupé coupé ne nay dem boîte vocale rek ma man ñuus yow yow du ma la bàyyil sax message yow yow yow sa kër laa jëm jaay kër gi ndaama aaye ko ko waaye ndaama del coupé rek de fii ba ngoon day coupé del coupé rek ña ah, ah da nga décroché gis nga lébu wuyu banday bàyyee maa ngi sa buntu kër taxaw ñaara mën a am génn ñu wax wala ma dugg fekk si la ci biir wax li may wax dëpp samay wax gis nga yow ñu dem géej ñu dem géej yow ñu dem géej da am na ma du ma lebu buy dem géej bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma lebu yaay jaam ya jub si gënam yànk ci mbaam du ma jaam lébu war nga maa def lii la ma la de ma jox la samay wax wóolu la tëb ñëpp nga dem ci xale jigéen bi du noonu naan ko di ko takk juum de ange naan ko da ngaa bëgg am ak moom doom tuddee ma ko ange juum ko ko wax billahi ange juum loo wax déglul voilà loo ko wax merci dama dem ah moom si kooka la ki mu doon dama lay yoole. bàyyi lii law dee. yow dama lay weer. yi ma xarit laal. waaw du ma bu ma waxati loolu. na ma moom bu ma waxati loolu ah du ma sa xarit waaw. waaw ma waxee naa comprendre. waaw. woo na waxtaan na ma. lan nga ko wax. waaw doo ma déglu si la. booy def nii yaa ngi fen. jërëjëf. waxal. oo ma. waaw billahi. waaw waxtaan na ma moom. waaw. ma nekk. léegi waxal li ma bëgg a dégg de. ma nekk. waaw. waaw. ma waaw ma xarit la waaw yàgg na waaw wax na ma si aw waaw wax ja rafet loolu wax na ma ne tagg nga ma fa mais li ma tax li tax a jóg wax ji li ma intéressé laa bëgg nga wax ko nga ko wax ma ne ko waaw nee na da la bëgg a jël soxna yaa ma a fen lébooy lébu lébu yaa mën a fen eh léegi ama daa xa fen ah xam wax loolu xamal nema yalla xamna ne aw bi mala la wala andax mom ba léegi ta ba duggé ci kër gi rek mam xel dara nek ci aw lepp ah ni sax ndagate boy bi xamna ma. waw xamna ma dé waw xamna may. ah lebu xamna ñatt la ma. Eh, wa lebu dégluma mané jëlal jëlal say responsabilité nak ka bi fu mu ag nang nang ko assumer eh léegi matay maa tay ñàkk jom kii bëggule man bëgg ah yonni naa ma doxaanam na ma la accepté wu la man la daa am dara ñàkk jom saane xam locataire yi jar na bàyyi xel xiiroo beeg naa yoo bi ci gi lay xee ñànku man mi la woolu kay bu ma la waxul la àdduna du xulloo rek a fi ne am na yeneen yu dàq xulloo waaw waaw xam nga géej gi foo ko teg mu xasaw xun waaye bu duggee ci cem li nga cin li nga xam ni lépp dëgg la moo yée tey am daqaar noonu la wexe waaye am na noo xam ne boo ko ko defee mu mën a jàll ci sa put masam nag ñu te yooyu duñu ay nit ñu ñooy nit ñi lu ñu réeroo réeroo war a mën a waxtaan ba juboo waaw nan waxtaan àdduna am na yeneen yu dàq ay xuloo defante nag yow tamit sama waa ji ah waay jàpp sa yëpp def ko ay xuloo waay hmm? wax li ngay wax man da ngay ne ay togg ceeb ak waaw man li ma bëgg nga njëkk koo def li ma bëgg nga njëkk koo def soo añee soo sama ji nekk ci man lësalaa laay añee dama bëgg ma dara nga bàyyi ma man li ma bëgg nga njëkk koo def ñu nek ben wax deug yalla lo mëntul ne wa non non fat pot fat pot fat pot ci nek sax ñepp koy def lo ko li nga wax lepp yow wa wa mais ne yow ni koy defé wa wa graawul buñ ci ñëwaat euh nga dug ngay rot ndox di dug ci douce bi sangu ba set watu sol ay yere yu set ndax yow mom mom yow facture ndox mi mën nañ la baña jox sa wal nga nga nga nga diko nga ngay cotiser yow à part naan ak seul mo rek nga ci def ak le la wat man soo bëggee sangu soo soo mbuusu ndox bi juróom laay jël ci laay sangu seen boo fi ñëwee ba léegi ne mësuma laal seen ndox mi pour mu leer. d' accord ñaanku dafa am lu ma naqari ci sama àddina te ma kenn fajal ma ko ku dul yow waaw yow rek laa ci yaakaar lébu daa am lu ma gis muy xale bu jigéen bii ñëw fii te gàtt daame lii ñëw fii ma bëgg ko lu ma la nëbb maa ko bëgg nokk ndax góor laa. yónni lebu pour mu tokhol fa samay wax agalel ma samay wax ma fas euh, ko jox soxlo soxna lebu dem de ko bopam nangu ko ci man fenal ma fa fen yoo do xam xale bu jigen bi nangu ko ci man sama xol bi jeexna tak tak tak ak ni ma mel ak lebu ma beug nga dimbali ma ci jarna bu lebu duggee fi nga nga nga nga nga nga toroxal ko ci sama kanam wala nga tax la nga door ko wala ma koy door tax ma koy door man dama top wala ma japp ni di dolaté wala man lutax yow lutax sa xex ma ta ma ak yow dafa ñaaw bu fekko maa dafa la fet sax maa dañu dafa ñaawoo de dama laa woo pour nga dimbali ma yow fay yow tamit baa si baa si daf lii baa si daf lii parce que nga rek nekkuma ci de doo ma dimbali ba dimbali ma yow man man du ma la dimbali man du ma la dimbali de yow su newee su newee yemal xiyam su ma fa su gars yi dugg ba ba ngay waaju dugg su ma mënoon tëj bu dama koy tëj. waaw naa li nga wax. waaw dégg naa li nga wax amul benn problème. xanaa ma am yërmaane jékki ba saa yàlla tijji waa buntu bi. na sa waa kaa dugg. non baax na garaawul bu ko ubbi. waaw bu ko ubbi. waaw bu ko ubbi garaawul. waaw man sama man man man man awa problème. waaw waaw man tamit awa problème ku ma ku may ku may ku may ku may télété yenn yenn affaire yi. amul problème. dégg am na ya am am na yéenewu am naa xalaatu am sama soxla euh, euh, euh, yaakaar la ci. wax la ko mais c'est normal ay dëkkandoo la. waaw waaw waaw waaw mënoon ngaa njëkkee foofu rek. dëkkandoo la mënoon ngaa nga koy ñaawal. soo amee soo amee nga ko war a wax. waaw soo amee soxla waaw parce que kër gi tey jii. waaw sa ka sa ma détaillé si sa fa amoon balaa kenn ñëw ma ka ñëw de. waaw waaw kay ñun suñu dëkk daa war a nekk. waaw waaw moo gën parce que nag man. wax suñu amee defalante. waaw mu lay dëgg. waaw su ah. su amee mu dafa mbooloo moo tax ma wax la ne àdduna am na yeneen yu raw yu gën a neex xullu xeex. waaw waaw. fa la ma naa baa maax daal. waaw waaw. waaw wax na yàlla nañu yàlla boole baal. waaw ah, waaw mais ma doon ko. yàlla nañu yàlla léegi daal yow yaay xool rek. Hmm. kay xool. ah. <laughs> <laughs> yow yaa xool noo ma koy dimbali lee rek lébu laa nga toroxal ko. ah lébu neex te toroxal. lébu de xam naa ne. waaw. baax na. ah ma doo ko benn alal rek. waaw naka teel. non waaw te bu ci tudd sama tur. waaw waaw. wala nga xool affaire bi noo koy. organiser noo koy mën naa ko. waaw noo koy mën naa ko na sama xol sedd rek. <laughs> waaw. <laughs> Aliou jëloon ko woon sax. ah non waaw sama sama sama. ah jëloon jëloon ko woon sama xarit nga sama xarit nga. jëloon ko de waaw maa ngi jëloon ko amul. ah jëloon ah. ko de jëloon ko de. ah baax yàlla baax na yaa ngi danga cee téye de yaa ngi yaa ngi ci téye. yaa ngi ci téye ma ni. ay ah bo daal nit yooyu laa foog moo ñëw ay jëloon ko ay bàyyi bàyyi dama foog. ah xaw ma woon ne xaw ma woon direct rek da ngay kii noonu. dama xamoon kay dama yooyu dama ko jëm. loolu la la mu. ñoom daal réclame affaire bi rek. xaw na def. li ngay def bu ma ko wax def ko rek dinaa ko yëg jeex na <laughs> buñ di xulloo wax nga buñ di xulloo buñ xulloo ay dëkkandoo duñu xulloo baax na baax na xama ne bul ma encaissé nag ba pare ba ma noonu way may may lag la mais avance la ah non kit ne ah, am na reliquat de ah am na kit nañ de jar na bàyyi xel xiiroo beeg naayoo bi ci biir kër gi lay xee mi moom kër gi amul suwa tey muy jaay kër gi salaamaaleykum akal ko salaamaaleykum yaakal ko salaamaaleykum yaakaar ko waaw ah. Ah, ah ah ok ana femme bi ah eh ko wul eh eh eh saay yow gën a leew kóol gi yow yaa ko gën a leew lu fuwe yow ay soble ay ay pomme de terre la lay soble table yi nga toog di ñolu nga di ko lekk wala foo ne mbiw kenn du fa nooy yow ku leen jabal nga nga ko dooma ngi ni fekkoon na ngaa def sax def ko waaw am yow waay waaye la ngay def ci baax waɗata so kaf ko fof bo mbokku ma naalo so bañi mum somo ko jami sama tumum ɗigam lobedde oh, yo fokka gonga kemba ko so mbokke dama ko limbaye tajla tumu so dagay na nga nekk jëlal sa yi di wax yow moom sa ndof bi day yow yow loo bëgg lii làmp ci ñag bi la jëm soo fa soo amee soo amee pax du gaaw a la làmp wala làmp loo wax. luy làmp làmp làmp mooy teg sa oom ngay làmp. di def ah. luy ci ñag bi la su amee pax du gaaw a génn. Hmm. loo loo olof la. léegi loolu lan léegi loolu noo noo ko mën a tekkilee ma comprendre yow li ngay wax. lébu. waaw sa jëkkër. waaw. fële dafa commencé affaire yoo xamante ne naaj moom mënu woon noonu. sama jëkkër lébu. waaw day day fréquenté booy. booy yëpp mooy nekk sama gaal. gis naa leen mu commencé génn ak benn booy. maa leen loobu waa dëgg leen loobu booy di ko wax ne ko xaw ma lan mu ne day jaay day jaay ñetti gaal jox ko ko. yaa dégg booy ma loolu ma déggaat booy bi naa ko sëkk ñaata kël nga mu ne ko yonaa fekkee set kël mu ne ko mu jox benn mu ne ko waxal waaw moom booy bi commencé nañoo génn li may bañ su continué. Mhm. xaalis bi yëpp booy nañ ko lekk. Mm-hmm. te loolu moom maa ngi teg waaw te lu wax dëgg la. te leer na la. waaw yaa teg sa bët. waaw xam nga laglu ma li may wax li nga xam ne moo ci ne. ñànk nit ñi dañ naan da ngaa nag waaye te dofoo na waxi nit ñi yaay nga fi wax mm-hmm. pour sama ndijaay ma tuutee sama cet waaye kuy jéeg maa la gën nekk ci pour sama ndijaay mm-hmm. dinaa ko faj. dinaa ko lijjanti. yow na sa xol sedd dafa mel ni galaas. waaw léegi moom jëloon nga. man may dikk waaye maga may daal. waaw jëloon nga ne ko man la sax jërëjëf yëpp jëloon ko ba xamante ne man lu baax la moo yow laay bañ nga am am problème. ci kattanu yàlla. réew loolu moo nekk seytaan. na sa xol sedd na la yàlla fay. Uh-huh. saaga bi ma saaga. du ma ko baax ba. du la saagati su fekkee fekk fu ci ma ci ma na daw. léegi góor nga foo dañoo mën ci met dawal. yow na sa xol sedd. xar mi laay rek la ba doon la lébu. yow na sa xol sedd ba mel ni glace. jërëjëf am ah, sama waaw waaw. lébu daal day mandé si mbedd di tërëfee si biir kër. waaye tey lay xam ne jéeg bii ku ko tooñ dangay nelaw waaye ku ko tooñul danga kaa bàyyi xel xiiroo beeg bi ci biir kër gi lay xeex. xanaa bi xool bi nii indi nag dawale machine bi mais day kaa yokk ba machine na ma ñu kula nee na ma ne machine bi chaque jour mu paan lii ma seet financé ndax bari gaal yaa ngi ma sonal machine bi vër ba mu eh, sës pour mu eh. sës. mais yow yaay freiné yow yaa yem si tefes yow yaay taxaw. ndax yow yaa raw moteur yaa raw gaal guy nappi. la ma def. Ndijaay man du ma jéegu filtre. ah man de aw aw moom sax naa si koor gi nii. tubaarikàlla damaa joogu ma kàddee. Ah, ah xam na ma lool. may xale bi yaayam gërëm. may xale bi yaayam sant. ma ñëw rek fës kii ne la CSC la. nga muñal nag lu ne. nga dëkkub léegu la. sa yub léegu la. ndax tubaarikàlla Ndijaay. sëyul ñu war. Dengar gis si man ba ñàkk fayda dangaa gis gis si man lan lan lan moo xew la xew ndijaay dama bëgg nga noppi boo noppee di nga xam lan moo xew waa léegi waxal ndijaay ñaari baat laa la bëgg xamal waxal bu ma yàplu waaw yaa ngi may dégg la fi jóge waaw yaa ngi dëbb seen kër ba mel ni ngi neex seen biir kër gi bu bi sa kër yor ay ñetti gaal astafirullah lu ñu wax xam te xamoo ñu wax nga ne ni kay foogoon na ma ne ak nit laa ndagate aw ab dof laal de aw ñànku laa la déglu dama ne aw waa léegi ndax maa déglu nag ma waa aw sax ba léegi engrais tafa ci rek fële ba ma faa dem saawo ma fa yóbbu ala ma waay yàgg nanu man ah moom avance nu sëy la am bobu ba léegi nak maa ngi seex aw si ñek ak digg na ma la né sa jabar ji mënu la am dom ba in ba léegi amalu la dom loolu lepp manke muñ jappala te yalla rek tax. nijaay jëli ci man ma sa yow mii dama maa rase. dama day wa nday man bo ne ba benn ma ne na la ñett nak li nga xam. aw kon nga mu wax ji ni bu lu neex. man la ma doy doon. nijaay dëgg la wala du billahi amul. aw way ñànku laa la dégg. neex na ku nag dina ma ko rey. boo ma kër ka dese. loolu sama yoon newu ci. ma kër laa tas dinaa la xamal ne man jéeg piir la. oh boo ay jéeg man loolu xam na ma lépp. Ah. xam na ma ne ab jéeg piir laa. man jéeg piir loolu rek laa bëggoon neex. ma xam ka yëpp figurant la ci xew mi ndijaay. man a man si biir. léegi loolu mën na tax u nekk ma ñàkk man day dina ma ko ma uyu uy ma waaw waa kay baax na baax na baax na wala rek indem tànka parce que fii ba ngi la wee jën wi dala daw maa ngi laa oo léegi maa ngi laa oo léegi maa ngi laa oo léegi taxawal waaw maa ngi laa oo léegi xaaral waa sama yére ñaan lii la la lii la la xamuloo waa loo def ne waa léegi taxawal taxaw na mais ma daw taxaw. déglu ma rek aw léegi man maa des. te aw a ñëw ma kër. wala fen la jaxase. xaw fen la aw a ñëw ma kër. man man saa waay man sëkkal bu sama waa teg sama tànk. waaw man ñànku mi man la man sequma ak yow aw est-ce que aw ak nit laal aw aw. aw man laa bàyyi fenn fa ne dugg fa la fen la fen rek si koñ bi. ah man je ne suis pas un yaa dégg man boo ma damay ko man man man c'est pas ma laal. ma jabar moo ma ko wax moo ne ma aw a fa ñëw. u ne man damaa ñëw fële si kër ga. ila xool gu ne xeesi. mais mais mais mais sa jabar day fen. aw a la fen. mais man fa laa ma ñëwee si sa kër man sama faa ma. xam naa na si kër ma fa ñëwee. ma waaye ma fa andi. mais sa kër mosuma fa teg sama tànk bi. ba ma ko jinne na ma dem ma yor. u ne ñëw la fen rek ñànk ma. oui ma man nag. na ma la xamal leen na de. billahi maa la gën a dof te maa la dóor la ba la bëgg dee defu ma mu lay dara sa waay sa waay yaa ngi ma xanaa tooñ yaa ngi may woo accusé ma ah, di ma na traité n'importe quoi di wax ne ma ñëw sa kël atama ah, ñëw sa kël ma ma ma man eh, xam bu ñaale takkala si may ga lii yóbbu la biir géej billahi defu ma xamul la dara yóbbu la ba biir géej rey la foofu la maa def pour lan pour rey la pour rey la saa yaa ngi tooñ nag bal ma fenalati yaa ngi tooñ nag yaa ngi eh, tooñ bal ma fenalati neel waaw mënuma ñëw sa kër bal ma fenn lati neer waaw ñang waaw baax na baax na dama tey tey nga may mujjee gi sa kër ba u ñëwati ma kër rek tey sa benn yoon boobu laa fay def fay mujjee eh bal ma rey wa waaw baax na nga daw la yapar yapari nii la yagar yagar dof ba la bëgg dee sab xisawaay ah maa ngi xaar ba u ñëwati ma kër rek daal dof dof ka dof la aw xisaw xiiroo beeg nga réew mi moom kër gi amul suwaa tey muy jaay kër gi ndaama aaye ko ko waaye ndaama kenn demul mu des ndaama amul suwaa am na aaroona am na Moussa Fall Adama Fall ak kan. salaamaaleykum. waaleykum bés bés rek la bés ku nekk ak sa bés. waaw du bésu tey tey sama bésa la ilaha illallah ooy jàmm wuyu rek bu ma la yónneetee di nga wax la ma la wax loo correctement doo yàq samay wax yónni la nga dem salfaani samay wax def te loola def kooku kooku kookan la. man dama waay. ah. billaahi mënu maa bàyyi. ma xam ko. ah, ah. xam naa ni mënu ma laa ba. mënu maa bàyyi de. xam naa ko. aa ngi noonu. yàllaa ñu boole. ñu niroo. billaahi. tolloo njoolaay. yami kanam yami feem. bu doon soxna sax waruñoo xulloo maag. vraiment massa maag coro rek. dëgg dëgg waaw. moo tax ma ne naa ñëw baalu la ak. baal na ma la ñu ginn kolte baal na ma la. Euh, te sax. Mhm. xale bi dafay ñëw. kan moom man mi ngi fii waaw. mu ngi si biir fii waaw. waaw waxtaan ak moom. Uh-huh. ni ma papa ma ne ko ah, mu ni ma. mu lébu dama koo bëgg. Uh-huh. ma ko wax nga dëgg. mu ni ma waaye ni ñuy def bëgguma euh, ko. Hmm. damaa bëgg daal mu def ma soxnaam. ma ne ko yow bëggee nga noonu lébu mu ni ma lébu rek laa nopp. de maa waaw xam naa ne sax yaa ngi ci. xam naa ne uh-huh. yaa ngi ci bu baax a baax xam naa ko di. léegi daal ma ne ko ah. mu ni ma waaw ma ne ko léegi bàyyi ma ma def ci samay pexe. bàyyi ma ma def ci samay pexe mhm. waaw na nga kii ko léegi nag waaw dugg leen dugg fan fii sama biir néeg bii ma woo ko ngeen wax dëgg jàpp bés ah kay billaahi alama waay demal ci biir rek ba nu amee doom waaw jàppal ni ak moom de même balay sii ñaari sii yëpp aw la ma kaa tudd demal rek ndax alama waay dama ko dama ko bëgg defal surprise demal néeg bi yow sab néega ah. sab néega mën ngaa dugg waxtaan fa sab néega tey waaw toj naa sa gat de ñaaw ñaaw ñaaw tey tey laa lay def taati neen tey beneen yoon bu ma la yónnee di nga wax la ma la wax loole fay jawaay lekk <laughs> juboo nañ léegi lébu moo fi ñëw gis xale bu gis xale bu jigéen bi du dugg ci biir kër gi mu ñëw fi ñàkk jom ñàkk jom gu toll ni dugg sama biir néeg bi neen nañ ko ëril xale bi demal ma ci jabaram nga ni ko léboo ngi fii def fee rendez-vous bi booy baa ngi fii dugg na léegi nag duggal rek ma booy bi wuy lébu wool jabar ji nga ni ko léboo nga tëju sama biir néeg ah su ñëwee fii laay dugg sama yoon du ci ne bu ci sa yoon ne waaw demal demal rek wool ma jabalu lëb nga ni ko kër nga ni ko sàmm nee na kër gaa ngay wàcc maman pardon waay tooga waaw <laughs> nga baal ma àq nag sànq xam naa ne yaa ngi nuyoo fayu ma la yooyu xam nga nit a matul waaw nit matul te waaw euh, lépp sama xarit la mhm. waaw yi fi aw yëpp xam naa ne mal entendu la rek te wax dëgg yàlla ëllëg yi si biir sax mën ngaa am sa benn copie nag yooyu jox ma ko <laughs> waaw ndax man tamit bëgg naa ku ma gunge bëggaa bëgg naa daal ku ma téeñ bi waaw maa ngi jëm mag te wax dëgg yàlla am naa yoo xam ne manqué na ma manqué goo xam ne waaw da tëdd guddi di bankoog yooyu di waññaaru rek sa biir bi di metti wax dëgg yàlla bëgg naa daal ku ma gunge lébu nee na mi ngi ci biir dalaa soxla mu ngi waxtaan mu ngi fii. fii nii waaw waaw sama néeg. <laughs> comme am nañu néeg est-ce doo ko wax mu ñëw. déedéet dafa nekk. Ah. mu bëgg wéetoo kenn nekk fa duma ma fa dugg sax. Ah. yaa ngi toog fii avocat tu fee. sawaay sawaay sawaay moo nekk foofu ah heure mu fatoog booy booy bu jigéen booy bu xeet bi moo wax bay bëgg a dee moo sa saaga jag ragal saaga boo xamante ni na ma laa dowee saa dee xam foofu wax naa moom bay bëgg a dee booy bu ne sawaay ne moom. car car car ci dafa métti ay waay ban booy. lébu sa jëkkër sa jëkkër. lébu man waaw. sama lébu maari Mariam Ndoye. waaw moo fat mooy booy boo la doon asi keroog keroog. boo la doon waaw léegi mu ci ci nekk ba. si bëccëg gi waaw nekk nekk saa rek la la ko fat. lébu nag sama jeeg da koy laam-laamee waaye tey laa koy woon dee kii tey la bërëb bi lan la. Mm. jiituñu la. man damaa wax ba dagg. eh amoo loo wax. ah yéen ñaara yam sàmbaay bàcc mburu fukk fëriñ. Eh, eh eh eh dafa doy. Ndiaye Ndiaye eh xaw ma xaa xaw ma naa xaw ma mbaa damaa bëgg nga génn fii nga xam ne jéeg piir nga fi fekk Ndiaye tubaarikàlla namu ma dara namu ma saala yaay ndeer. ñaan ko yow nga génn fii. yow eh eh eh kaay ni yow loolu dugal sama biir néeg. aw ndeyli yow yaa kon. Ah. Ah, la ñaaw defuma bi la ñaaw defuma bi man si jéeg ju foo laa boo kan nax nga sa bopp. nga man maay jéegu teel a dem marché teel a taal teel a lijjanti nam ma sala yaay ndeer xanaa kii moom fóota ñak fay ma eh, eh, eh. seet si ma dalal ko te do amé looy wax nga waxu sa dekk ok war naa mën a ne suñu ñaari bëd dina dëgg ci dina rek ba nga nooy man la man la jégg bi jaral seet man la gis nga yaw ndijaay yaw lima la wax barki demb fi da ko koo yaw ñaari baat la la bëgg xamal ndijaay xéss dara gëna ba mënoo ma wax ma xéssal sama teenuwaar bi dalaa doyul billahi dama namalu bari dama ay ci bir wala dama ayul ci biti dede dede du li ndijaay xam nga la bëgg bo ñëw sama kër la lay xaar dina tak sama bëgg jëm bir ma may eh, ma baat dina la wax man la kan comme yow bu gali téré yaa ci bir kër day lay neex li ngeen di fóot di ñàkk lay ko bi loolu eh, ah, lay xaar la nii lii la la ah. eh waay moo ko tay lu dal ci kii bi moo taamu fi muy dal de dafa ni xiij ba ni mu taamu fi muy ñëw lébu lébu lébu maa ngi yow xamante ne maa ngi yow xamante ne lébu lébu lébu lébu maa ngi yow xamante ne wuyu ma maa ko mën a fen daanu de naa ko koor bi daan waaye yow lébu du daanoo ni day nga jabar gi lay xool dem na dem na jabar ji dem na booy baa ngi fii nag ci biir fii ah ah lan ah waaw sëlmul Wah. Ini bisa buat. Ah. Nah. Baru, yo robo tau. Tau mo ci mil, mil wa. Aram nako. Aram nako kuy nan sangara. Tan pei dara am. Hotel David di say. Nyang ko li da ci eh, ki ndayan ni da ci bax nak. Lele bouteille bi di wid. baax na ci de ngay ànd ak sa sago tuuti xam fi ngay teg sa tànk ak li ngay xalaat ak fa nga jëm ndayaan gannaaw tey jàpp naa ni lisit nga mën naa waxtaan ak yow tuuti ndax àdduna moom ku la ci jiitu mën na la mën mën mën mën la see waxu tuut ndayaan mënoo jël sa àddina bii yemale ko ci bañ a xippi àddina xoole da cee baax ak ànd ak sa sago gone nga diir dëkk ci kër gi tey laa la mës a gis nga ànd sa sago te <coughs> bu ma juumul musuma ko musuma màndi nag bu ma juumul bu naaj wi tàngee léegi nga dem nga ca ndeeri gabon yàq sa avenir yow sa santé du baax doo jëriñ sa bopp doo jëriñ keneen dégg Euh, doo doon exemple xanaa bëggoo am jabar ak doom ay waay waay waay ndaayaa na ngay jooy waay ay waay ban malaaka wàcc ci kër musu am jabar musu am doom bëggoo jabar père man sama àdduna fa metti sa àddina man xalaatuma sama avenir hmm. ndax sama avenir dafa yàqu lu tax ndax mosuma xalaat ni àdduna dina ñëw ba ma am lu baax comme nu lu samay moom am voilà ndax si dolli mhm. dama am problème famille mhm. kenn yaakaaruma mhm. amuma responsabilité sama xalaat kenn bëggu ko kenn soxlawu ko moo tax heure bu sama xel demee dama am problème ndax sama xel dafa sori sama xalaat sori samay bëgg-bëgg sori te jafe mënuma ko téye ci sama loxo sama avenir awma ci yaakaar moo tax heure bu sama xel demee jëm sama xalaat suba awma dimbal kenn mënumaa dem ba teg ma loxo ci lu ma yaakaar moo tax li nga ko sànnee nii yàlla na dem te bu mu ñëwaat yàlla boo ko téyeti yàlla nañu ko yàlla sànni gis nga dinaa la xamal mbir ku yàlla sàkk am na lu mu namm ci yow ku yàlla sàkk def na ci yow xam-xam ku yàlla sàkk soxla nañ la léegi nag dafa di li ne ci yow day nelaw ku ne li nelaw ci yow yaa koy yee pour mu jëriñ la wala mu jëriñ ñeneen waaye dooni kenn soxlawu ma soxla nañ la de bul ni mukk la ma bëgg dafa sori awma ku ma puus bu mu jëli ko jëlil ko sa bopp jëlil ko sa bopp il faut nga bàyyi li ngay jëfandikoo di màndi pour fàtte say problème wala pour bañ a affronter addina déedéet adduna da ngay lucide pour mën ko affronter ci ñëpp la métti la mag sacrifice na ma fii sama néeg bi pour ma fay ko sax problème la daf maa tax a naan sàngara wala may sàcc wala may def lu bon jëmmalal sa bopp amal courage bàyyil foon gi jaamu yàlla dëggal sa bopp ne ci lu baax saa yoo xëyee ko dinga ci jot man maa la ko wax dégg ma bul foraat butéel bi de bu ko for waw dafa lu rek waaw parce que bo toge ay dir ak yoy mën la wo di di di di di waaw cerveau bi mën na ko ko di ko di ko bëgg ko consommer wat bañal ne ko non cerveau bi yow ya, ya ko mom mom moomu la yalla man de booy bi defoon naa ni nekul ci xelam ni motax di nga gis nit di nan sangadak di fon dorog ak di pikiroog di def yu kenn xamul. fekk ni la muy doxaale ak la muy wéyaale moom rekk a ko xam billaahi man de ndaayaan mi dinaa ko gën a jàpp ay addina ñaanku del def nànk del def nànk damay ban nga faqastalu gaañu. damaa de. daa lu xew. lëf am na lëfu lu mu doon. lebu foo seen lebu seen ñànku jàppal lebu taxaw si ñànku la jëm. waaw lu lan la. ah sa kal na ma ci mbedd mi. Hmm. si ma ma ma si un mantool. Hmm. maa ñëw jaxase ak jawaram ne jawar moo ko wax yaa dégg ale bëgguma xaa dóol. mais yow jaxase woo li am moo ko def. waaw moo tëjoo xale bu jigéen moo ko def. waaw léegi nag. waaw léegi. waaw saa waay dem lu tullee. saa ne day jël xamala day dafay jël takk ma ci gaal dem ma ci biir démb sama foofu. day soob man day naa. day fen. Ah. ba ñu xale ba léegi loolu lay wax nit ñi te mosu koo def kenn. ah daal dina xam ba ñu gone ba léegi ku mu bëgg a napp ne la dama lay dama lay diigal géej mënul diigal sax boppam. moom géej gi li muy yori gaal di yori gaal mu tànk bi mosut a tegu ci tefes gi. du sangu sax bay bay laal ndox mi déglu li ma lay wax. day soob te ba mu laal la. xup na ma de. bul xuppu bul ragal. am naa fi waaye te xaw naa tiitaal. bul tiit mënul la dara toogal fii sa biir néeg bi dafa dof bu bëggee bu ah bu kon dem police bul dem fenn. waaw ma dem jël sama bagage dem nag ma dem côté côté côté Lamba yow dëkk foofu waaw waaw walaay parce que man man soo xool saa man soo xool ban lay ma fa laajum man damay jeex damay jeexal daal. waaw déglu man naa la wax. waaw lébu du sama xarit la. day sóob du lay sax melentaan du la def dara. toogal rek te ñemewul jabar ji ñemewul jabar ji bu ko defaatee ñu demaat ci jabaram ndaayaan ndaayaan aw na fi léegi sama xol bi ndeysaan oh hmm. tooy na fi wax ma addinaam yëpp ndaayaan mii ndeketee lala la tuba tuba ay non neena dafa am lu sori ci xolam mu am lu bëgg mu sori munu koo jot lala waaw daal neena neena waaw man daal wax na ma addinaam daal wax ma biiram ak bitéem rangooñ ya tey sax mu fóonul affaire bi dafa ànd ak sangoom xam nga bu ko fóonoon damay xam ni wax yi ku dem kii la fële wala ma njoo. mais bii dëpp laante wolo. laay njàng. day duul. ci lan. su fiigee affaire yi ñëwul. waaw mu lijjanti ko mu té. Mm. da loolu lay def fen di jooy naan papaam dafa gaañu. Eh, naan naan waay waay waay. ñànku waay déedéet. cinquante deux ans la ñu ànd maa ngi xam naa ko bu baax. yéen ñaa am ngeen cinquante deux ans. yàgg naa xam naa ko moom amatuñu cinquante deux ans moom waaye loolu la ànd. ah boo dama la xamee yàgg na. ah ndax noonu la koy defee. yéen des na yéen yéen yéen day fen. des na tuuti ñu maase de. suba nga gis ndaayaan. yoraat butéelam bi. jañu ko lan yabeewu ma noonu. ndaayaan ak butéel fii ci kër gi ak li ma wax yow. omera billaay ñabeewu ma noonu. tax eh eh eh bañ nga fu ci ay ndoxi ndaayaan bu ci baaxee. waaw léegi nag dama toog seen néeg lébu maa ngi mooma man man. waaw man jamono ñaan rek après nga gën woo ñu dem police moom moo gën a wóor en cas. waaw nañ def ne dal sax ah, rek. waaw ah, baax na pour en cas. baax na parce su ma layee. Ah. yow di nga wax ni ko gis moom dinaa ko bàyyi doomi jàmm. bu ma ma lay doo yow da ngaa deewagum. bu ma lay su su ma layee dina def óolal doo dee. maa la ko wax gëmm. waaw xaw ma bu ma layee fan laa wax gars est-ce que jotul ma tuxu man man man man ñak na dekk na dof dekk mandikat jàllo réew na lébu na ma ma def ni yalla ma fi mu fekk ak jam Oh. Alversa! Alversa! Boxum Alversa! Alversa! Boxum! Alversa! Alversa! Alversa! Boxum Alversa! Que gala? What? Boxum! amoo benn sang. amoo temps moom. te te yow butéel bu ndaw bi nga yow yow loo ma fii léegi nii. man. nee ma bàyyi nga jooy. ni sa adduna dafa yàqu te amoo ku la dimbali waatal ma ni bàyyi nga lii man waaw man yaa ma ko wax fii xaw ma xamewu ma la man man ku la jox lii waaye bu mag naa léegi bu ndaw eh. bu teg aw bay saa mu tal man suum. ah lii dootoo am jot de. ah. may. ñaanku. waaw. yow butéel bi nag mënuñu ko bàyyeeg yow. waaye. ñaanku. ñaanku. butéel bi mënuñu koo bàyyeeg yow. waaye. dañuy wax su àq ay jullit la. waaw bu kii léegi la wax ak man. léegi mu dem xeet na bu ndaw bi mu indi bu mag bi. wax nga ma ko de. xëy na nee naa amul temps. ah ma ma kai lambu a shawar nam eh, eh da da wax loolu wa to ma na ko ko do tamit na ci sowe ni na do ko na ko ci lewu le bàyyi xand gi ki xa li duñ la bàyyi moom ay jullit lañu dañuy waslu ab ah. bàyyi wel fi yow yow tanka nga ngay ngay ngay tay lew na do bàyyi xam naa la ba moom doo ko def xam nga dugal fi aw be sa waay waay waay waay Bas waay waay jóge fi jéem taxaw fi xam naa ko dama laa xam bu baax a baax a baax. taa parce que cinquante deux bu baax laa yow kon yow bàyyi ay waay. taa ma ci ah namm na ko nag boo demee da koo nag. waay seexaatee waay seexaatee a seexaatee. Ah, yow. voilà. Ah. yow. kañ nga a gis. Eh. dégg nga xaw ma xoti. taas mbaq bi kañ nga ko gëj a gis. kan moom. yow taas mbaq teggin waaw waaw waaw waaw man kan laa <laughs> eh, eh. Ah. ko gëj a. ah koñ bi mooy tuuti. ah xale yu ndaw yi. dama dama dama dama tuuti. wóor a tuuti. waaw waaw waaw eh, yàlla nañu mandi togal firam foofu tëdd ah da la koy def de waaw wóor la moom tey mandi tey di taas mbaq la ko diggee régin taat du ko santi gannaaw danaan tuyi rek ah ah voilà waaw fee doo faram xam nga rek malaka man malaka ma sa yaay mu la kaa nampal xam nga kan? billahi li wax fee dama ni kii tuub daa jooy yow fi ko dum la is yow yow yow desaan kay du si popole problème mooy xanaa pour lu leen dim génn si nii bu la tax bu la ko tax gëm génn na nag li ma ndax yoroo taw waaw ma ma araam na taw pour la la xam ne ndogoog yoon de ndox ndoxu la néew yow. daa jooy maa ko gis mu jooy. ndeysaan oh yëyu. bu muy jooy ba benn benn bët. waaw benn bët bi moo doon jooy nag. maa ko ma xam ko ah ko xam naa fa nii kii nii laa ko xamee. kii gàddeewoo gàddeewoo xaalis fecc comme comme comme yu toll comme ñaata. ay sept man de dama doon génn nii dajeeg ndaayaan muy dugg sax mille laa doon wuti mille. nag yaa ngi daa sore wala ne yow doo yool mukk doo yool mukk man xaw foo dunde xaw ma xaw ma yow bu nga juddoo ba tey xaw ma loo dundee ba toll nii waaye jaaxal na ma ndax yow doo yool mukk doo yool mukk booy bii mais booy bii réew na ah mais booy bii day jékki-jékki bu ànd ak xale yu jigéen ñi di dugg du nuyoo bu àndee moom la et booy bi moom dëkku fi dëkkaanu fi yor caabeem nii di kacc kàcc di ubbi ak di génn man daa booy bi war naa lijjanti ay mbiram lu muy liggéey ba am can gii ci biir kër boo demee moo luyeel xale bu jigéen bii yenn saa yi daf fiy fanaan ah ñoo xam ni sëyuñu sëyaanuñu astafurlah waaw waaw xale bu jigéen bi nee na ma amul jëkkër sëyoo ah ok kii xamul dara ci islam. xamul dara astafurlah. waat naa ko ci. astafurlah. islam xamul ci dalal dalal dalal dalal. salaat xamewul xamewul xaw fajal fajal fajal suba salaatu xam xam xamewul loolu. fajal suba ak salaatu mooy la. waaw xam nga. xam nga sooyewoo mm. fajal bi mm. mm. ah da ngay julli da julli fajal fajal waaw ñaari rakkay fajal waaw waaw ah après suba ñëw sawaa xamul loolu bu leen déggee du julli leen très bien mu ne waaw loolu la yàlla wax salaata kaamil moom nii la kitaabal loolu xam nga ko wa jaay la ma yàlla dafa am. ah yàlla yàlla yàlla yàlla da ay nitam nëbbee na leen nu ne. yabu maanu. yow xam nga loolu. ah, ah fen bu ko xam nga lu sa bàyyi ah, xamul de. Ah, dugg fi wax de ma loolu. li nga mooy lan. ma ne naka lan. inna salaata kaanul mu'minina kitaaban mawquuta. man de mu'minina la man xamoon. waaye yow kii li mu wax léegi ci alxuraan yow wax ko. mën naa wax lu gën a galaaw. waxal waxal li mu gën a galaaw. Ah? waaw waxal rek. mën naa wax lu gën a galaaw. waxal. ana set mën a imaan set ci ngëm yàlla bokk. dee bokku na ci ngëm yàlla la wax na eh, eh. ci ngëm yàlla. wax lu wóor. so malaa doon leen. lan. al muslimu julit ak muslimu julit jullit jullitaay mbokkam loolu moom mënoo koo weddi. ina la ina safaaru. Ah? ina safaatu. waaw safaatu mu safaatu. ina safaatu. waaw waaw seet. waaw mu ne bokk na si. fonk yi xoolee nit ci ngëm yàlla. waaw set set waaw waaw. yow ah loolu tamit débat la. loolu tamit débat la. wuy ci loolu. waaw dina wax wax bu kenn. ah dina wax ah, ah, dina ko wax dina ko dina bu kenn puub tab juróom ñaar sax. dina wax déedéet dina wax déedéet dina waxul loolu. dina waxul loolu. dina waxul loolu dina. itaquwala. a a bu ko dina wax bu kenn puub ah, wax indi. xam nga ne diine waxul loolu dafa dafa ni islam moo set ci jaamu yàlla la bokk. boo boo boo bëggee jaamu yàlla te setoo. munoo jaamu yàlla. Eh islam moo ni. islam set ci islam la njëkk a wax. waaw weddi waxa. waaw islam moo ni. waaw. mais suñuy wax naan bu fekkee mbedd mi li nga def lii lagaloo fi bu fa jàll. bu fekkee man guddi gi ñëwoo ma dem ci luusi islam nee na ma jëla pot nga fat ka waaye bu ci lor ñeneen ñi. waaw wala nga dee indil xet. waaw waaw kii kii bàkkaar dugg wa waaw d' accord. Ah. waaye kii. Ah. moom day fen. moom bi may commencé fotton waxoon naa ko naka damay fotton bi ma ko luwee fii waxoon naa ko damay fotton comme ni waa léegi loolu dañ ci atte te waxoon naa ko man man man man man su ma toogee ci pot bi nii damay def effet de boule tard mu mu ne loo garaawul xanaa woo tay day day tay la tay la ko délangé ah dépend dépend amul problème yéen daal yéen daal gërëm naa leen ndax ku ci nekk xam nga dara ci yàlla sunu borom wax dëgg yàlla boy euh, booy paal ma waaye bon lu baax ça va na nga def barikàlla daa yi mu ñu ne de yow euh, euh, booy maa jàmmati père ma ni yow da ngay dugg fii non seulement du nuyoo waaye néegu jàmbur bii moom bu liggéeyee wala mu wayaase nga koy ubbi ak di tëj da ngay avertir ñun ñu nekk ci kër gi per fii sama gàlla la noonu mu nekkee sa gàlla fii pulu fuuta bee ko moom ay ndara ngeen ay pël fuuta yooyu ma jox waaw lan la yow lan mooy sa problème mooy la waaw ñëw tijj mu tijjee ko ma dugg cil mais sànq ba léegi kenn mënu fi cil ndax ay dabaaw dof kii day gens kii dof ngeen nekk di kon waaw mais yow yaa ngi dugg nag eh, sa yoon eh, nekkul nag eh, eh li muy def nii. waaye sa waay yaa ngi lew de. wax waxal ak ñii dafal naag sa waay. waxal ak ñii. ma ni. xaw ma sëñ bi ñoo fekk mu ne ay ah, ay ay ay dama waaw non ma ni ma ni yow loo seq ak ndaw si. non defal nànk rek dama lay laaj. waaw waaw xaaral xaaral defal nànk. waaye comme yow. defal nànk waaye defal nànk booy man ngay waxal bu jëlee la wax ji waxal ak moom. man ngay jëlee la wax ji bu jëlee la wax ji waxal ak man mais waxal ak man non waxal ak man. mais waxal ak man tey ngay wér yow. mais waxal ak man waaw kii sa sœur la xanaa. allo allo. waaw yow. boy manuma laal. waaw boy boy demal demal. amul ca tey lii la ak yow waxal ak man. père yow laay déglu kii sa sœur la ban sœur xana ko bëgg yow ki suma bagage nga naan seur lumay may seur lan la yow ki di nit nga naan bagage bagage sama luy bagage déedéet lan moy bagage moy suma yëf bo xam boko boo ba waccé la li suma bagage la yow tam luy bagage ah yow faal yow gees man dama mën a xam kuy faal yow fan la fu na la yow caga ma wooye yow affaire dof yi nga ma wooye wala islam lay na la yëndu kii kii moo wax na nga fii fanaan dañuy yëndu xanaa waroon teegal ah, fanaan gis naa téeméeri yàlla la waloon baax na wala baaxul. waaw demal téeméeri yàlla la waloon kii ñi. kër gi nag du ku mu neexoon yaa ku mu neexoon yaa ma lay faj ñi suñu jàppaloon dañu ma lay téye ma téye nga sa kon téeméeri yàlla naa la daw. kaay taxaw yow kaay kaay kaay taxaw kaay jàpp la. naa la na ko. waxi Seydina Muhammad bu ñu joxoon jaasi. Hmm. ñi nga xamante ne dañuy am jabar di si di see keneen. paakalaay gi dañ ko tip rek. sëñ Awalay. wax yàlla islam nee na islam nee na ah. sàngara mooy mooy nday ñaawteefi. Hmm. kuy jëfandikoo sàngara yow jomboo def dara comme kii. eh. eh.

bañatu ko ah bañatu ko way ci wako baye damay tëm mu doon moo tax moo tax wako baxa doon doon wako baxa baxa baxa baxa eh bu ko baye bu ko doon bay bay bay bay bay bay bay de saway saway wuy ma bayil ma li di xeex boobu baax eh waa jëkkër te ngari taalal nga naay laay wulus ma ci ngaram jeeñoo barambay soo jëkkëti dinu aal te ngari taalal nga naay laay wulus ma ci ngalam kookoy barambay sela mi seen waa ngi kolo buura garam koo sama yaa de looy Matei! Vai vai sal! Vai sal, um não deu de luz. Mano, vai. Eu vou te dar um finger, deu um dos mil leve. Dos vale! Tá bom. Tá bom. Musa ma gis, musa ma gis bëjëk, may saw ci neeg bi ci pod bi. Bu loolu guddi laa ko def parce que ñemewu fii doo ko def. loolu mënoo wax ba ma def ko du ma ko def pour lan. léegi la. lu tax yow yow loo xool ba a ba fa sa pot bi. gisuma ko. non ko yow li ma bi mooy 15 bi ngay 15 moo tax gisoo pot yi. loolu lay wax sama 15 sa yoon néew sama pot samay néew sa yoon néew ci. boo bu ko fi defaat si léegi. waaw bàyyi 15 yi. bàyyi ma ko bàyyi ma ko amal. yow li nga bàyyi si nii wala nga bàyyi ko si nii. yow yow mën nga ma xaar loo bëgg a def yow mën nga ma xaar def la wala ma bañ a def. si yow loo xam def tey. yow yow da ngaa leew yow da ngaa leew. waaye sa waaw duul ko yow. waaye da ngaa leew de. waaye sànq. waaw xaar. sànq waxal kii. kiiagul kiiagul. dégg naa lépp. xaw a dégg naa. dégg naa lépp. dégg naa lépp. ñànku ñànku moom nga ni. moom nga ñu. lamp moom nga ñu. fanaanoo ci néegu fanaanoo kër gi du sa kër. fanaanoo ci néegu fanaanoo si. kër gi yoon nekku gi du sa kër sa yoon nekku ci néeg bi. ma koy jaar nee na dootul ñibbi lu ko waral kër gi daa neex xamoon lu koy yoot moom dafay ñibbi. ndax saa neex tey ma wax la lii jikkoom